dal leen ak jàmm taw yi nga xam ne nag moom moo amoon démb fi ci biir Dakar ak yu bëri de la indil askan bi yeewoo fi ci mim réew ndaxte jolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne fii ci biir Dakar dem beeg dikk bi dafa tagga témbee rax ci dolli ay koñ ak gox yu bëri nag ndox bi dafa ne sarax daal di fay toog askan ba fa dëkkee nag nekk ci ay jafe-jafe yu tar li ni mel la ñu nemmeeku fa li nga xam ne nag moom mooy ca Parcelles Assainies ndaxte foofu jolikaay bii di Sud mi ngi ñuy ne ay yàqute yu bëri de la ndox bi daal di indi firndeel askan ba fay yeewoo ca Pikine Grand Yoff ak tamit yeneen gox yoo xam ne ñoom ñoo nekk fii ci biir Dakar tamit li ni ñu fa daal di gis tunnel bu Soumbédioune foofu moom dafa fees dell ak ndox ba ñu mujjekaat tëj li ni mel tamit moom moo am ca centre de santé Philippe leen Senghor foofu it ndox bi dafa dugg bu baax a baax autolikaay bi di la tribune ne loolu nag catastrophe la maanaam daal ginaawaale lagi nag gu métti la daal di indil askan bay yeewoo fii ci biir Dakar ndaxte démb foo tourné nag ndox baa ngi fa woon bi di la taw yi nga xam ne moom moo mujje am fii ci biir Dakar ñu daal di koy gis ci guddib àllarba jàpp ba sub alxames daal taw yooyu moom bëri woon na wante yi indi na tamit jafe-jafe yu tar askan bi yeewoo fii ci biir Dakar ñu ngi ñi xamal tamit ne ci diwaanu Kaolack foofu moom ñu bëri dañoo mujjee génn ci seen i kër dem feneen ndaxte daal ndox bi dafa nangu woon seen kër ca Kaolack dañ fay des ndaxte julikaay bi direct info mi ngi ñuy xamal ne askan ba fay yeewoo ñoom de mer nañ ba futu nag jëmale ko ci kii di Mariama Sarr nekk ki jiite diwaan ba ndax ñoom la ñu gis moom mooy ne juróomi at ngi ni daal ñu daal di koy tabb ci bopp mairie bi tey defu fa dara ki daal di xam ne li ni mel sax moom mooy Khalifa Wade moom nag nekk responsable bu parti présidentiel foofu nga xam ne nag moom mooy ca diwaan ba moom sax la mu gis moom mooy ne jot na nag ngir ñu daal di fay jëlee ki nga xam ne de moom mooy soxna Mariama Sarr autolekaay bii di 24 heures ne ñu nag lu weesu diwaanu Kaolack diwaan yu mel ni Bambilor Sokone Nioro Kanda ak tamit Bakel ak Kaffrine foofu yi daal bëri na nag ay yàqute yoo xam ne taw bi daal dina ko nga xam ne moom mooy ca Bambilor am na ñaari nit yoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan nag ndax taw boobu fa nga xam ne nag moom mooy ca Kaolack benn soxna la courant gi maas nag ginnaaw taw gu métti gi nga xam ne moom la ñu fa nemmeeku woon ak jafe yu tar yooyu nga xam ne nag ñoo ngi koy nemmeeku fii ci biir réew mi ay mbënd yu dul jeex ak tamit nit yuy ñàkk seen bakkan aujulikay bii di Vox Populi mi ngi ñu xamal ne boobu nag fekk na ne gouvernement bi ñoom de ña nga ca vacances nag di noppal seen i yàq Pape Diop sax bi jiite bokk gis-gis li ni mel sax ma ngi koy naqarlu ti moom nena daal njiitu réew mi daf fi wàcc nag jafe-jafe yi nga xam ne moom moo nekk fii ci biir réew mi dem nag ba ca bitim réew eh, ngir daal di foofu ñu daal di ñëwaat nag ci eh, crise bi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ca parti démocratique sénégalais nag te suñu naataango yoo coolikaay bi di Dakar Times ñoom la ñu gis sax moom mooy ne ci wàllu xeex boobu nag dafa mel ni ne ñoom ñooy xeex ak waa génération du concret ba sax nee nañu nag tey jii sax ñii di ñoom Omar Sarr ak ñeneen ñi nga xam ne daal ñoom dañoo fippu jëmale ko nag ci kii di maître Abdoulaye waa dañoo fas yéene sax daje ak taskatu xibaar yi ngir nag ñëwaat ci jafe-jafe yooyu nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci seen biir parti boobu julikaay bi di Les Échos ñoom de maître Abdoulaye Wade daf leen a sasoon ngir ñu daal tànn ñaar a a tànn ñaar ñooñu daal nee nañu xëccoo pëccëxoo moom moo fa amoon ba sa mujjantal ga sax mujj ñoo tànn kenn bàyyi nañu daal maître Abdoulaye Wade mu daal di def lu ko neex nag ci wàll gi ni mel ñu jukki nag ci wàllu dialogue politique bi ndax teew culikaay bi jële témoin mi ngi ñuy xamal ne commission bi nga xam ne moom la ñuy sas li ni mel démb daal dinañuy waxtaan ba ci seen ne amal rax doole tamit dañuy indi ay coppite ca nañuy fale ñi nga xam ne nag ñoom yi léegi moom ci suffrage universel direct lañ leen di tabbee laas moo ñu yëgal waa of nag ñoom fu mu nekk ni nag dañoo fas yéene liñatu mbirum ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent nga xam ne dañ doon fësal ay temps di wax nag dañu ko luubal fa nga xam ne nag moom mooy Prodac autolikaay bii di laas mi ngi ñu xamal ne dañoo nemeeku nag ne ci alxames ji daal ne bëri na nag ñuy liggéeyee ca Prodac daal ñu doon déglu fa li nga xam ne moom mooy ca OFNAC ñu jeexalee ko nag ak suñu naataango autolikaay bii di Sud nekkoon na fi jëwriñ ba pare nekk conseiller en management moom nag ma ngay ñëwaat ci yenn ci ay xew-xew yi nga xam ne dañu ko nemeeku fan yi te ñu daal di ci joxoñ baaraamu tuuma nag yenn ci ay policier moom moom di Abdoul Aziz di xam ne nag ñu waruñoo ñàkkal fayda ñi nga xam ne nag ñoom saytu suñu kaaraange war ñoo tamit saytaan ngir yàq seen i der ndaxte xew-xew yi nga xam ne nag moom moo fi jot a am gis nañu nag ne ci wàllu réseaux sociaux yi dañoo joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoom ñooy policiers yi ba ñenn fësal ay kàddu yoo xam ne nag tegginu wóol moom moom nag di Abdou di xam leen ne li ni mel nag nañu ko dakkal ci ni mu gën a gaawee ndaxte di ko wéyal fii ci mim réew daal mun na ñëw indil ay jafe-jafe yoo xam ne daal duñu ko mën a antan li moo nekkoon wax